bismillah bismillahi taala alhamdulillahi arrahimi arrahman bismillahi arrahmani arrahim subhana man la yuqalu li gayrihi subhanaka allahuma salli wa sallim wa barik wa tarham ala asrafi alxalqi wa sayidi almursalin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala ahli bayti altayibin altahirin wa sahabatihi wa tabiin wa man tabia lahum bi ixsan ila yowmi yaqumu naasu li rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi daleen ak jàmm ci fukkeelu jotaay bi ak juróom yent ci silsile bi nga xam ne mooy alxajaaj ibnu yuusuf assaqafi démb ñu ngi woon ci xajaaj ci xisaab bi mu war a am ak muxaalif yi ba toogoon ak jotaayam commencé di rey ndax euh, waxoon nañu démb ne ñaar yim teg ci juróomi junniy nit yi nga xam ne jàpp na leen tëj leen ci kaso bi fas yéene di leen di àtte ñaar la teg ci kaw taabul bi ndax nangu nga ne ab yéeféer nga boo ne waaw mu bàyyi la nga dem soo paree ñëw yeesalaat sa jaayante ci moom boo nanguwul ne ab yéeféer nga mu dagg sa bopp bi ñaar yii la moo tax boroom xam-xam bi ne ñaar yii bi ci gën a neex moo ci gën a wex gën cee naqari Xajaaj ibnu Yuusuf tey nag indi na ki nga xam ne mooy Muhammad ibnu Saad Muhammad ibnu Saad ibnu Abi Waqaas nga xam ne baayam bokk na ci ñi jiitu ci lislaam li alquran di wax naan wasaabiquuna al awwaluun kii ci la bokk boroom xam-xam bi ñi ngi naan juróom mooy juróomeel bi ñi naan juróom ñaareel ñi naan juróom ñetteel nga xam ne loolu uh, yiw fa ko kaw ñi njëkk dugg ci lislaam moom ci la bokk bépp xare bu yonentu alayhi salaatu wasalaam masa def moom mi fekke na ko ba keroog xare Uhud gis ñeen sahaaba ya lenn ci sahaaba yi bi ñu dawee ndax Xaalid ibnul Walid bi mu tourné yéeg ca kaw xeer ba nga xam ne yonentu alayhi salaam waxoon na nit ñi fa yéegoon na leen lu mën a xew bu leen wàcc yonentu alayhi salaam ne leen bu ngeen gisoon ñu ñu ñu rey ñu ñun ñëpp ba gañe ñu ñun ñëpp bu leen wàcc te amu leen ndigal yonentu na leen bu ngeen gisee ñu gañe ñëpp ba yéeféer yëpp daw ñu gañe leen ba jël seeni alal bu leen wàcc te amu leen ndigal ñoom nag bi ñu gisee ne jullit ñi gañe nañu ñu ne ah yonentu de daa bëggoon a wax ne rek bu ñu wàcc waaye fi ñu toll nii xeex bi jeex na ñoom ñu wàcc bi ñu wàccee naa sayduna xaalid ibnul walid boobu ñëwagul ci lislaam ko xam xeex la te mën a xeex yéeg ca kaw ak ñi mu àndal daa di euh, wëlbatiku nag attaqué jullit ñi saxaaba yu bëree bëri daw bokkoon na ca ka dawutoon mooy Saad ibnu Abi Waqaas xare yépp fekke na ko di jàmbaar Seydina Ali karamallahu wajhahu daana wax ne dégguma kenn koo xam ne yonantu nee na ko jotee naa la sama waajur bu góor bu jigéen ku dul Saad ndax yonentu alayhi salaam dafa ne xam nga moom moo njëkk sànni xeej ci lislaam yonentu dafa ne sànnil fi daaka abi wa ummi fi ummi wa abi kooku nag doomam moom la alxajaaj ibnu yuusuf daal di rey kii nag bi xeex bi jeexee dafa bokkoon ci ñu réer waaye Yazid ibnu Muhallab euh, ca boori xarasaan xam nga moo ne woon gouverneur foofu mu daal di koy luqarti boole ko ak yeneen yónnee ko Xajjaaj ibnu Yuusuf mu daal di koy rey rey boo xamante ne bii rey bu ñaaw a ñaaw la gannaaw ba nga xam ne nag euh, jigéena na Basra mu dem Koofa comme li mu def Basra rek la fa def mooy nangu nga ne ab yéeféer nga boo nangoo mu bàyyi la boo nanguwul mu rey la lu tuutee tuuti la jéggal ki ñi nga xam ne ñoo fippoon ànd ak kii nga xam ne mooy euh, Abdurahman cam ca mujje rey nag ca ñooña mooy Saïd nu Jubayr radiallahu anhu te loolu dina ñëw ca kanam insha allah alxajaaj ibnu yuusuf nag bi bi mu defee yée ba pare dafa teg benn kuufur fa euh, kuufur fa bi gaa yi tegoon nee naa xanaa ci xajaaj lañ ko jëlee ndax xajaaj dafa tegoon benn kuufur fa waaye kuufur fa bi mu tegoon li tax mu garaaw mooy moom ku ñuy jàpp dañ lay ray dafa ne woon te loolu al imam al waaqidiyu borom xam-xam bi nee na wax xakka al waaqidiyu an al xajjaaja euh, naada fi l baladi anna man xaraja baada al ishaai al axirati min baytihi qutila xajjaaj dafa ne képp koo xam ne julli nga géeye ba pare boo génnatee sa kër te fajar jotul bu ñu la jàppee dañ la rey teg ku wër fa bu métti maanaam bu ku reer ba pare amutu droit génn daal nag woote nee na ko ñëpp yëg ñu wër nag ci dëkk bi di ko yëgle ne léegi xajjaaj ndigal li mu joxe mooy ku reer na nga tëdd guddi nag dina am police yuy dox képp kuñ jàpp dañ la rey soldaar yi xajjaaj yebal na leen ci biir dëkk bi képp koo xam ne dañ la jàpp dañ la rey xam ngeen ne fii fi la dictateur xajjaaj yem ndax lu ne euh, sañ na ko xajaaj ibnu yuusuf mu xëy ñu indil ko benn nit ne ko kii de dañu ko jàpp guddi muy muy muy taxawaaru bi mu ñëwee xajaaj ne ko maa axrajaka min baytika haadihi saa min baadi ma samicta al lan moo tax nga génn sa néeg gannaaw ba nga xam ne dégg nga ndigal li jógee ci man loo doon def fa qaal mu ne ko ama wallahi inni laa aksibu al giñ naa ne duma fenal njiit mu ne ko man sama yaay moo feebaroon déglu leen de sama yaay moo feebaroon ay fan ma nekk ca moom lu man ñetti fan bi ñu demee ba guddi nag mu xaw a yéeg ak tene tuuti mu ne ma yow ko doo dellu ci xale ya demal sa kër ga sa njaboot ga xale yi namm nañ la yàgg nga fii am nga fi ñetti fan nee na ma génn di dem bi ma génn di dem nag ci la ma sa gaa yi jàppee indi ma fii xajaaj ne ray leen ko gaa yi jël jaas yi dagg bopp bi mu dal yi fële ca beneen bis ba gendarme yi di wërati parce que couvre-feu xajaaj xajaaj tëral na ko ñu jàppati keneen ne ko waaw xajaaj na ko yow maa axrajaka fii haasihi saa lan moo la génne fii haasihi saa lu tax nga génn ci waxtu wi gannaaw ba nga déggee ñu ne joxe naa ndigal ba pare waa ji ne man dafa am ku ma yore loon xaalis teeloon naa dem nag di ko jëli bi ma demee mu taxawal ma ci bunt bi taxawal ma foofu ma toog di ko xaar ba guddi gisuma ko ci laa waññeekoo dem ñibbi bi may ñibbi la ma gaa yi jàpp indi ma fii xajaaj ne ma digal la ngeen di moy sama digal daldi di digle ñu ray ko ñu dagg bopp bi mu daal di dali ñu ëndeeti keneen koo xam ne dañ koo jàpp xajjaaj na ko ma axrajaka haadihi saa lu la génne ci waxtu bi gannaaw ba nga déggee ñu ne damaa tere kuy dox heure bi fa qaal mu ne kuntu ashrabu maa qawmin fallama fallama sakirtu xarajtu min indihim wa ana laa adari fa axazuuni ilayka fa qaala alxajjaaju li rajulin kaana indahu maa araahu illa saadiqan summa qaal xallu sabilahu fa xallu sabilahu kii moom ñu jàpp ko indi ko xajaaj na ko lu tax nga génn mu ne man de dama nekkoon ak sama gaa yi naan sàngara ba mu màndi xamatuma fan laay taxaw bi ma génnee sax yëgu mën a génn naa man daal jàpp nañ ma indi fii laa door a xamee fan laa nekk dama naanoon sàngara màndi xamatuma fu ma nekk di tërëf tërëfi ci mbedd mi gaa yi ñëw fekk ma fa jàpp ma xajaaj ni ah kii de li mu wax dëgg la bàyyi leen ko mu dem ñu bàyyi ko mu dem euh, léegi nag fii xajaaj lu tax kii naan sàngara mu bàyyi ko mu dem ñële xajaaj ne nañ leen rey parce que kii naan sàngara moom bi muy génn yëgul woon ne génn na moo tax moom xëttul ndigulu xajjaaj ndax yëgutoon ne génn na moom naan na xamutul fan la nekk xajjaaj ne comme yow xamoo fan nga nekk xëttoo sama ndigal garaawul naa la bàyyi ñële nag ñoom bi ñuy génn xam nañu ne lii ñuy def nii xajjaaj tere na ko ndoomte ne ci diggal lañ nekk waaye génn bi ñu génn xam nañ ne xajjaaj tere na ko ba nopp ñu génn moo tax bi ñu leen jàppee ci changé xajjaaj ne nañ leen rey ñu daal leen rey kon gis ngeen xajaaj daanaka moom mbir yi nu mu ko yégee rek noonu la koy defee ba léegi it ci jëfi ñaaw yooyu nga xam ne mi ngi ko doon def dafa am ku ñuy wax ku kumaylu ibnu ziyaad kii nag euh, boroom xam-xam la woon waaye amoon na lu ëpp téeméeri at xajaaj ibnu yuusuf mujj ray ko te lu tax mu ray ko mooy ci jamono sayduna usmaan ibnu affan radiallahu taala anhu wa arda Ousmane euh, dafa pesoon kii ci kaw njuumte kii nag ne ko damay fayu pes bi ma pes Seyduna Ousmane boobu moo nekk amir nekk président jiite ñëpp waaye ànd ak loolu yëpp wog na lexam bi def nii doq gi wog lexam bi ba mu neex a pes wax waa ji na ko fayul pesal waa ji na ko jéggal naa la te lii lu mel nii yonentu alayhi salaam defoon na ko ndax euh, yonentu alayhi salaam euh, benn waaye neewoon na ko damay fayu fekk waa ji dafa bëgg a gis li ci gannaaw gi ba yonentu alayhi salaam wokk mbubam mi mu ne ko sa yaram kenn du ci teg yàq daal di koy fóon Seydina Ousmane Ousmane Ibn Affan waa ji ne ko yaa pes damay fayu Seydina Ousmane defar lex bi ba mu baax ne ko xisal mu ne ko jéggal naa la léegi nag yii dañ koo nettali xajaaj xajaaj ibnu Yuusuf xam nga xajaaj bi leen fàtte ni ci dawla Banu Umayya la bokk te Seydina Ousmane ibnu Affan ci Banu la bokk moo tax xajaaj rey na ay nit ñu bari ñoo xam ne mi ngi leen rayee rek ci kaw féttéerlu ak uute bi ñu uutee woon ak ki nga xam ne mooy Seydina Ousmane ibnu Affan ba loolu sax moo taxoon mu mere ibnu Mas'ud xajaaj daana wax ne ibnu mas'ud di saxaabi bu màgg boobu mu ne bu ma fekke woon jamonoom dinaa euh, dinaa nàndal suuf ci ci dereetam su ma fekk woon jama su woon jamonoom dereetam dina màndi euh, suuf si dina màndi ngir dereetam loolu yëpp ngir jéppi bu mu ko <coughs> jéppi woon léegi nag kii dafa dañ ko nettali xajaaj xajaaj ne ah awa misluka yusalu min amiril muminina al qisaas ndax ku mel ni yow <coughs> yaay bëgg a di bëgg a fayantoo ci amirul muminin ndax ku mel ni yow war naa taxaw ci kanam Ousmane ibn Affan naan ko yaa ma damay fayu am na ñu wax ne loolu tax mu rey ko am na ñu wax ne déedéet Hajjaaj ibn Yuusuf kii kumaylu bii dafa bëggoon Seydina Ali yu lool Hajjaaj ibn Yuusuf nag fiir ci loolu mere ko ci loolu ci bëgg gi nga xam ne bëgg na ko Seydina Ali yi mbëggeel googu noonu ci la ko xajaaj mere ba tax mu fexeel ko ba rey ko am na ñu ne reyu ko ngir loolu waaye daf koo rey ci pes bi nga xam ne Seydina Ousmane pesoon nag ko mu bëgg a fayee ko xajaaj ibnu Yuusuf nag bi mu ko wooyee ba mu ñëw mu ne ko ah, wallahi la ab'adanna ilayka man yubghidu aliyan akthara mimma tuhibbuhu anta fa arsala ilayhi ibnu adham wa kaana min ahli hims wa yuqaalu abal abal jahmi fa daraba unuqu xajaaj na ko giñ naa ne dina indi dinaa di yónnee ci yow koo xam ne bañ na ali yi comme ni nga ko bëggee nii nga bëggee ali yi dinaa indi ku bañ ali yi lu raw ni nga ko bëggee mu yónni benn waay mu ñëw mu daal di dagg bopp bi daal koy rey rey bu ñaaw te boobu kii am na lu ëpp euh, téeméeri at kon alxajaaj jibnu euh, yuusuf euh, salbiyaat yi nga xam ne xew na ci ak dundam laa tuaddu wala tuxsa am na bis muy werante ak ki nga xam ne mooy du werante sax ndax dafa dégg ñu ne yaxya mi ngi wër ci biir dëkk bi di soññu nit ñi di nettali nit ñi euh, sayduna hasan ak sayduna husayn alayhim assalaam nit ñi di leen di gën a bëgg moom nag mu taxaw wax ne euh, sayduna husayn bokkul ci sëtu yonent bi alayhi salaatu wassalaam xajaaj weddi loolu ba set wicc parce que nee na Fatima moo leen jur jigéen na leen jur kon duñ ko askanale ci yonantu mu ne àll yi nag moom moog yonantu sequñu dara ay mbokk lañ nii rek comme ni mu bokkeek ñeneen ñi mu ne ko Xasan ak Xuseynu du ñu sëtu yonantu bi mu waxee lii nag Yaxya ne ko fen nga ne ko kazabta yaa xajjaaj xajjaaj ne ko wallahi da nga da da nga ma indil dalil buy wane ne Xuseynu sëtu yonantu la da nga ma ko indil ci alquran wala ma dagg sa bopp bi daa di nag woote ne kii daf maa saaga nee na man damaa fen garaawul waaye lii firnde ci alquran biy wane ne Xuseynu sëtu yonentu la da ko indi wala ma dagg sa bopp bi xajaa nag te mu ne ko man nag bu ma digalee dinaa ko matal su ma tëkkoo dinaa ko matal yaxyaa ne ko xanaa lii nag am na euh, ixtilaaf am na yeneen riwaaya yu wax ne du yaxyaa mu ne ko yow xanaa jàngoo alquran xajaaj li ngay mokkal alquran yépp alquran nit taxawul fii ku gën a ku la gën a xam alquran ànd ak loolu yëpp yoo xamoo ne kii sutu yonantu la mu ne xanaa déggoo fi yàlla di wax ne wa wahabna lahu isxaaqa wa yaquba kullan hadayna wa nuuxan hadayna min qablu wa min durriyatihi daawuda wa suleymaan dem ba ca yàgg mu ne waa isa mu ko isa alquran nee na sutu maam ibrahima la waaw Isa kan moo ko jur jigéen a ko jur di ndax Isa daa am baay jigéen a ko jur te alquran nee na sëtu kii la xajaaj ibnu Yuusuf ne ko saddaqt wax nga dëgg daal di koy teral xajaaj nag bu leen fàttali ko bëggoon alquran la xajaaj foo ko indilaat addila ci alquran mu taxaw mësul naan sàngara ndax nee na li ko alquran tere te moom daf ko daan tere te nee na du du du ko tere ba noppi di ko def foo ko indilaan dalil ci alquran mu taxaw ànd ak jëfam yu bari yi nga xam ne jëf na ko yëpp dana yàlla jéggal ñu jéggal leen wasalaamu aleykum wa